fi jam fekkat fi jam kon nak salam mbokk ak xarit yi ñuy seetaan ci Sénégal TV lëkkaloo ci ak web dal lañ jam ci seen revue de presse quotidienne ndax bëgg ngeen xam lan la yéene kay yi fësal tay ji duñ def lu dul jàpp ci seen loxo ànd ak sama natango Ali Saleh ñu dal di xuus ci jàppazon actualité kon nag Ali Saleh wa waaleykum salam wa rahmatullah mbokk yi bisimilah ci seen euh, ëttu yéene kay yi nga xam ne moom la ñu xëy fësal tey. تاينك لي ابتي كرويني كاي خينك فيس لين خامني مودي خبار بوتيس مودي غينوك ادونا غران سرين دكار وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون غران سرين دكار باسيلو جان مارين جوب واتنا ليغي لو كوتيدير دا دي واخني كيب كو بوك سي اسكانو ليبو امغا لولا نقاري ديمبا bu ñu ñëwee ci yene kay bi le populaire daal di koy fësal mu ni ki nga xam moy grand serigne de Dakar ci ben clinique ci réew mi ci la wàccee liggéey mu ko nit ko xamni ci walu unité nationale ak unité africaine ak xaritoo bi doxon ci digganteem ak nga xam moo li président Khadafi nekk na nit ko xamni ni kenn dootu ko fatay ba tax na jamono yi ñu ngi koy jaale julli ci yépp diko jaale Sénégal gi yépp diko ko jaanu communauté musulmane bi ci aduna bi yépp waye popularité tam xëy na bind ci génnuk aduna Serigne Bassirou Diagne Marème Diop grand sëriñ de Dakar sëriñ Bassirou Diagne Marème Diop nekkoon ko xamni ci histoire Sénégal li mu ci jëf dafa bëri ci walu politique ci walu social ci walu keur yi nga xam modi di gi ci dakar lu mu def ba boole leen loolu yëpp yéenekaay ñu naan le populaire daf ci daal di dikk mu nekk naqar bu tiss bo xamni wa Sénégal moom la ñu asbara l'observateur xey nak fessel li nga xam mo jëm ci Idrissa Seck ginnaaw bi nga xamanteni bi nekkoon na ganuk radio Futur Média sa Seck ci l'observateur moo daal di taxaw def jàkkaarloo ak surnaal si nekk ci yéenekaay bi ñuy wooyee ah Groupe Futurs Médias ba mu waxtaanee ak ñoom Idrissa Seck yëkkati ay kàddu yu metti mu mel ni ay xal la daal di sotti ci nguuru makki Sall bi nga xam ni wéyal nañ ko ci benn at kii di Idrissa Seck ba muy wax ba ci biir dafa daal di jooy bi mu jooyee kii di Ousmane Ba nek ko xamni ni analyste la ci walu politique neena li nga xamni mom la Idrissa Seck def stratégie de communication la da fay fexé bu mom ak wa askan wi am tiofel bu dox ci seen digënté parce que méré won nañ ko ci ni mu doon doxalee digganteem ak Abdoulaye Wade lool nak la bëgg a wat nak motax mu daldi joy pour dugg ci xolu sénégalais yi. ginnaaw euh, tour rongo yooyu nga xamni ne Idrissa Seck tour na ko foofu ci radio Futur media tontuk Abdou Mbaye danaka fanaanul. dafa mel ni mbéju kanam bu ne ah ki nga xam mooy borom moo koy fayul boppam le populaire daal di dikk ci loolu ginnaaw Idriss Seck dafa ne ñii nga xam dañu bokk ci ah nguuru Macky Sall ay la lañu ku mel ni Abdoul Mbaye nga xam mooy njiitu jëwriñ yi xamul li nga xam moo di finance publique loolu Idriss Seck wax na ko waaye ki nga xam di moo di premier ministre Abdoul mbay te dëgg dëgg dëgg war na leen ni tontu du forox tontu na Idriss Seck tontu yoo xam dafa daal di yéeme Idriss Seck nag taxaw taxawaay boo xam ne li mu bëgg a wone mooy principal opposant bi war a jàkkaarloog Macky Sall moom la asbara lakk ga nga xam ne amoon na ca Medina dafa mel ni bàyyeeguñ di ci wax ndax ñi nga xam ne ñoo fa ñàkkoon ci seen bakkan balaa yàgg fas nañ leen jëbal seeni mbokk. mbir mu tiis rue 6 angle 19 l'observateur wax la fa xam moom moo xewoon mu mel ni lakk ga fa amoon nekkoon na lu daal di yéeme waa hôpital principal ci wàllu autopsie ak recherche lañ doon def nag gis nañ lu tolloog juróomi jëmm yoo xamante ni dañoo dee faf na xam ñan ak ñan la waaye am na ci ñeent ñoo xam ne dañu lakk ba nga xam ni kenn mënatul xam ñan ñoo leen mën moom pour jël leen daal di leen di yóbbu daal di leen di dëjël mu mel ni ki nga xam moo di Saliou Anne ñàkk na ci doomam ji nga xam ni Basiir lu tudd am fukki at nee nañ nag jamono yi ñi ngi leen dalal fi nga xam moo di ca école ya waaye fan ñi nga xam ni Guinée-Bissau nag ñoon dina leen yebal ci seen i mbokk na daal di ñibbi yéen kaay bu naan lu populaire mu mel ni démb ca siggi Ziguinchor nag tribunal ba amoon na àtte boo xam ni ci wàllu Chérif Chamsidine Nema Aidara min faatoon tabaski ci 2007 moom nag ñi nga xam ñoon lañu tegoon baaraamu tuuma ku mel ni Chérif Chamsidine Kamanding dara moom kooku nee nañ dafa mel ni bàyyi nañ ko ak ki nga xam moo di Malanding Sonko ñoom nag am na tiis bu tegu ci seen kaw ba tax ñe na leen doon layal nee na yoon la ñu bàyyi leen ki nga xam moo di Chamsidine Kamanding moom nee nañ ah toog na ba nga xam ni soxnaam dem na ca li nga xam mooy njabootam daal di nay tasaaroo ki nga xam moo di Malanding Sonko dem na ba xam ne ay bëtam gisatul te dafa mel ay cëram tamit dafa daal di wàññeeku moo tax nee nañ yoon la ñu bàyyi leen ñu ñibbi parce que dossier bi ñu ko xoolee dafa mel ni lu dëgër këng nekkul ci biir ci walu tagat yaram euh, quotidien l'observateur dellu ci match de football bi nga xam amone ci diganté Sénégal ak Angola ndam demul ndam dikkul yene kay bi ñu naan l'observateur daal di fësal ki nga xam mom la ñu dénk suñu gaynde yi mu len di tagat kooku mo di Alain Giresse Alain Giresse dellu si ci match Sénégal contre Angola néna na lan wane ci match bi nak dina tax mom dina jël ay dogal yu bees tàq li wér won moy équipe bi dina ko teggat dina ko yëngalat ba bu duggé ci terrain bi ñu wonawaat beneen xar kanam ki nga xam moo di Aliou Cissé nee équipe bi bi mu la xoolee mi football wanew li nga xam moo di njàmbaar wanew xadar goo xam ni day wane ñii dañoo bëgg am ndam parce que nee na footballeur professionnel bu demee bay dugg a war a nekk ci boppam mooy nu ba daan waaye dugg ci terrain di football pour plaisir football nee na loolu xaar ñu ko ci gaynde yi. wante lamb dellusi na ci Tafatine ak Balla Gaye wuré wa dem na këng waxi mag dem na ndañ taal yéen kaay bii na naan su lamb daal di dellusiwaat ci diggante Tafatine ak Balla Gaye numéro 2 Moustapha Gueye le tigre de fas ni Tapha ku ko xool xam ni pare la nee bi ñu demee Zénith ñoom ñaari mbër yi nag jaay nañ combat bi ci discipline ci waxante li ñu war a waxante Balla Gaye tamit ku ko gis xam ni ànd nag dal moo gën a dal sax Tapha Tine Tapha day bouger day yëngatu lu bëri waaye combat boobu dafa nekk combat boo xam ne bis ba nag Moustapha Gueye nee na li nuy xaar ca amateur li ñu bëgg ci combat boobu seen xool dina ci sedd guy ki nga xam modi di fëgala ñëwaat ni mom li wér woor ginnaw bi mu daane salum salum li nga xam modi protéine ay xéti garab yo xam ne soo ko da lay ëff yok sa katan néna dotu ko laal ca jamono yi néne dafa soxla ki nga xam modi zos pour fayul ki nga xam modi tidiane fay fay ba baboy wala lak de guerre ñoñu ñi ngi ci xelam mbokk yi fi lañ leen di taggo bu ko defee rek ñu bayiléen ak asbara mu des ak yeen ci seen rubrique ndekete yoo wasalam ndekete yoo. ndekete yoo. ndekete kii di président Macky Sall kaddu yi Idrissa Seck yëkkati ci waxtaan bi mu amoon ak waa groupe Futur Média doon dal ci li nga xam mooy nguuram bi mu defee at ndekete yoo président Macky Sall loolu neexu ko woon. nee nañ fee mu nekkoon ca Mauritanie mer na ci mer goo xam ni dafa mel ni sax ca ministre mi am na koo xam dafa daal di dal ci kawam ba mer bi mu mel sax daf leen doon fàttali ki nga xam moo di président Abdoulaye wadd ni mu daan def bu fekkee dafa am lu ko naqari ndekete nee nan Idrissa Seck ba mu taxawalee parti bi nga xam moo di réew mi boobu Macky Sall premier ministre la woon moom moo ni woon un parti politique parti politique bi kenn mënu ko tuddee réew mi parce que réew mi mooy Sénégal président Macky Sall moom moo daal di joxe ay dogal yoo xam ne tax na nag récépissé bi kayit yi ñu jox ko Idrissa Seck mu daal di taxawal parti bi nga xam moo di réew mi kon nag moo ko xar yi doon seetaan foofu lay tàggatoo ak yéen di jaajafal ni ñu si àndaloon Omzito ak ki nga xam moo di Dior ak sama naataango Ali Salih mi nga xam ni moom laa doon présenté le revue de presse bi di jaajëfal Ndiok Malick Dieng ca Londres wasalaam